जरा काम को कहते नुनिंजन जानिंजन पिनिंजन नियो दिलो हटे उसी दिन जब कासे वो जो वो पीछे जामजन नुसे तीन अने स्वाद वाला मने सांपियों वो साइड रोक सांपियों हम के रोक मने नुसे की साइड नियो जी तू बात जागो बात जागो ने कौन पांच ने जल्दी के लिए लंता तो को हमें वो देखी दे जाने दे जाने दे जाने वाजी के नुने की लाम जी के नुने की बपाती actuellement mu ngi écrit jamm gën si Kambalou mu ngi ñëw seet si tey fas yéene seetal ñu waxtaan di leen wax si sama gars yi Kame lèm kwa ranyè lèm kwa paske nidlèm kwa kame lèm fwaya lèm silam. Dèlèm patèk lèm silam, mòk lèm jilèm tak lèm jèm patèk ou tèy. Dèlèm patèk lèm sèkèk mòk wò san, bas lèm wò pù jàm wèm dèm tèy taban. Ahan, bas manè yè zèr. Nè kèy tèy? Ba lèm pù jàm. Kè jèk jè fè? Nè wò rè lèm lèm nèm wò. Nè mè mè mè nan. noonu la fa demee yàgg na yàgg na kon lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan aha sama waa koñ kon tukale bi ñu ñu fi nekk aw ma seen fay aw ma seen tawaay seen taxaw seen taxawaay bi rafet na fi taxawal tey yàlla fi yàgg amiin waaw maa ngi gërëm sama waa Gala Ba sama maire yi sama mag yi mhm. ak sama rakk yëpp mhm. waaw su ma la am combat ñu ne ma Bass yàlla na yàlla may combat man leen am mais benn instant kan mooy Bass Ndiago waaw Bass Ndiago bi xam nga Bass Ndiago bi kenn du kenn du ko wax kenn ah, waaw mais d'accord mais euh, man maay laaj man xam naa mais je peux me permettre quand même poser la kan mooy Bass Ndiago boo doon présenté wu da nga naan yaay kan <laughs> waaw Bass Ndiago koy gars yi day xam nañ ko koy ah, ah. waaw gars yi xam nañu tam mooy baat Bass Ndiago ñëpp xam nañ ku ku déglu ku jël avance Bass Ndiago di ne Bass Ndiago ngay bëri ku jël avance bi waaw di nga xam ne Bass ngay bëri di nga xam ne Bass ngay bëri waaw mais bala bala ñuy ñëw ci avance bi tegam instant bi yaa ngi ci arine bi dañuy jël si waat ci mbapat dama fee dugg durant des années ñu ne ma grand bi man leen naam ñu ne ma Bass dafa toj mbapat yi ñu ne ma Bass Ndiago amul lu mu deful ci mbapat dafa dafa toj mbapat yi xanaa cat moo dugg wala lan lan la wala on sait pas mais baas dafa dafa toj mbapat yi man loolu lañ ma ko wax aussi am na ci loo xam ne dama ko fekkee parce que man bi ngay mbapat laa la dalay photo ci te sa euh, stade Njaareem mbapat bi nga ñëwoon bëre si jour boobu coppet bu lan saar aussi bëre na fa ñoom si te si te bëriwul mais ñëwoon na accompagner leen mm-hmm. mun ne ko mbapat bu riche fees dell yaa may dégg kon man fekke naa mais gars yi seetaan laa bëgg ñu xam kan nga def ci mbapat man kay lu ma def si mbokk bëri na kay. comme lan ak lan. man man dama doon bëri dama doon jël cinq onze. Mhm. cinq onze mbokk dama doon bëri samedi daan bëri dimanche daal. samedi dimanche. waaw samedi dimanche bi mu ko doon bëri daal macha allah. bëri samedi daan bëri dimanche daan. waaw yaa ko daan def. waaw mbapat. waaw amul seen junior bi nekk vraiment pour mbay. waaw bëri nañ ma gàllankoor laa ko daal. maanaam. Abbas. Abbas man. Abbas man Abbas bi nekk vraiment pour mbay. waaw bëri nañ ak. ak kii ak Alioune Diouf. Alioune Diouf ëmma. Oh, bu Mansour Mbaye. waaw terrain bën bën bën bën. waaw mbapat. waaw oh. mu yaa daan Alioune Diouf. Alioune Diouf men ñu ngi bëri ok Alioune Diouf bi nekk école de Mansour Mbaye ëmma junior. waaw oh. bu buunu. yaa ko daan mbapat. Rouge Bordeaux moo ko indi. ko indi si boobu. ak El Hadj Lawbe El si kaw. nga jàpp ko daan da ko boo dal si ko ma lay daal mooy law ba moo ko moo ko conseillé loolu ne ko bul dal ci kaw mbër mi mais nga jàpp ko defal ko bagaan mais fii fii ci jàmm gën gaa nañ ma da nga feet ko yi fii ñan ak ñan nga fi bëri man kay daan naa Jackson Jackson man Jackson man dem si yàlla dem si yàlla si Jackson Jackson bu buun waaw moom laa njëkk a daan municipal terrain municipal daan nga Jackson municipal ma fat ji Bombardier ko daan naa ko. ji Bombardier ji Bombardier bu buun bu yëmbal. daan nga ko. fan. Mbirsi Fall laa ko daane. ok. daan daan daan Ndiolaye. Ndiolaye bi doon Kër Garo maa ji Bombardier. ji Bombardier maa ko daan jël caxabal wéeru ko mu waaj d'accord cette combat yi seen municipal bi kan ak kan ak kan la dan naa dan naa dan naa dan man Thier man Thier bu non da ngaa mën a daan Thier barke Seydina Mohamed Bass fooy bu buun Thier bu buun laa bu xees Thier bu xees waaye eh, loolu dinaa ko laajaat de xam nga moo ko tëgg Sambel ko tëgg ok Sambel moo tëggoon làmb jooju boobu Siteu sax mu ngi doon bëri Siteu Siteu woon Siteu mu ngi doon bëri benn benn gars bu yor dibidor bi na si nga am waaw la njëkk a bala muy muy bëri ceer waaw man la njëkk a bëri ok nu mu demeewul combat boobu dañoo daw jàppante ne boobu Michael moo doon Michael man Michael bu Fora mel moo arbitre làmb ji kon làmb ji am na seede ok dama ko dama dama dafa doon mbot dafa doon mbot moo daw rojogu nii dana bi dal ceer ceer bu buul ceer bu buul est xam nga ne ceer am na fu mu jaar ak sàccees ceer am na sàccees mu man bu ma dugg ci ay lim sax mais est-ce xam nga ne ceer digganteem ak marle rek kenn li kenn du ko lijjanti yaa ngi dégg ceer dafa dafa dafa toj mbapat yi mm-hmm. d'accord digganteem ak Siteu combat de waaw combat de derby la woon sax foofu mooy loolu ba nañ Siteu daan ko mais man yow boo ma ne daan nga ceer loolu je me demande nu mu demee ok ñun bëri nga daan waaw daan nga daanaan xam nga xam na ndaanaan ñaari ndaanaan ñoo daje daan nga ji Bombardier waaw daan nga ndaanaan waaw daan nga Eumeu Sène Junior bu Boun Alioune Diouf daan nga ndaanaan Abbas fii eh, nii fii côté yii nii jaamu gën jàpp jagsaaw jàpp caaro ñan nga fi ñan nga ak Cheikh Faye Cheikh Faye rako bëgg mu demee Cheikh Faye maa ko daan nag nu demee Cheikh Faye <laughs> Cheikh Faye Cheikh Faye ak maa nga foofu dama jàppee woon daa ne booy bi su ma ñëwee prix dib laa koy def ma ne ko boo ko defee nanga ko sa bopp man tam bëri bëri cam xam ne mi dafa caacaam yooyu te boobu xamul ne njaago bi lay dare njaago bi lay dajel mooy dafaagay mooy bëri xam nga bëri boobu la yor mhm. ko tey ubbi sama poqataan yi ko wet ma may ko wet ma ba muy ba muy dem bay jàll ma daw kepp ko non yaa ko def exprès nga may ko wet waaw man naa ub ma maa ko tey ubbi sama poqataan yi nii waaw ubbi ko nii ma bàyyi ba muy dem di jàll ma daw kepp ko après nga kepp ko sulu wëx wi lamb ja jeex euh, bas kon kon ñaata ñaata victoire nga signé ci mbapat non man mbapat yi mbapat yi lu ma loolu man gars yi wax nañu ko loolu du question de dara du question de dara man on se connaît très yaa may dégg mais aussi jaral ma aussi ma fi toog di wax loo xam ne gëw ma ko mais man loolu dama toog di waxtaan ak ay mbër jaama gën ñu ne ma grand bi man leen naam ñu ne ma baas baas dafa dafa toj mbapat yi ñu ne ma baas yaagu ba tey li tax teewul làmb ji ñun ba léegi daf ñoo daf ñoo yéem bon dafa xam man man man man ma tar rek dañ jox nañ leen ne booy bi dañ koy togg da nga jàpp ne moo la tardel moo ma tardel ban Max la tardel am mu ne foog nga xaar te booba yow toj nga mbapat yi amatoo looy prouvé si mbapat il fallait nga dem ci arène bi wane sa bopp mais bu combat taxawee ñu ne la non toogal xaar man man la lii mënu ma ko xaar na ok mais daal mbapat toj nga ko ñaar ñaata defet nga am nommé defet la victoire yi ay ñaata. victoire yi moom it mënuma ko jàpp moom. victoire yi mënoo koo lim. waaw yéen yi ma jàppoon moom duñ si ba duñ si baal. d' accord. mooy sept combats yi. d' accord euh, bu ñu fa jógee nga dugg ci arène bi en quelle année. arène arène moom yàggul lool. non non ban année. 2019 non non non non du 2019 sama waa ji man maa ngi suivre damay laaj mais maa ngi suivre de. du 2019 man ba may bëri daal Kazu Rajab la tombé. Kazu Rajab waaw suñu combat bi la fi mu war a bëri comme. Concorde moo doon bëre moo mhm. Concorde ak benn gars Concorde Seras. waaw la woon. fii la Amadou Bari. stade Amadou Bari. Concorde ak ak kii Concorde ak euh, aywa lu mu tuddati euh, référence. référence bu Thiaroye Mbooloo. ak Concorde. waaw stade Amadou Bari. Euh, journée manga manga manga 2. nga bëre sa première combat. nga nga bëre ak Modou Lo. junior bu Tivaouane mais Bas Bas Bas tardé nga de. bon xam nga rek man instant dëggantaan maa tardé nga parce que parce que booy seet yow ñi nga mbafatandool yow bi ngay bëree sa première combat arène boobu fekk nañu bëree ay 6 7 8 10 combat arène léegi retard boobu lan la. bon man ngay di jaay nag man ngay di ci man. du woon ci yow du woon du woon yow. du woon ci pare woon nga pour bëri. pare woon naa pour bëri. chaque année ngay dafa métti. dafa métti. loolu nekk ci entraînement yi ku la xam xam na xam na da ngay entraîné. waaw mais mais mais Bass xawatoon ay jafe-jafe ay gàllankoor. jafe-jafe yu xaw yu xaw a ndaw rek. non non non non bu ñu nëbbante quand même bu ñu nëbbante parce que parce que parce que euh, tey dama déplacé wu pour nga wax ak gars yi. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. parce que tey bu expliqué clairement. Mm-hmm. ne daan nga diw ak diw ak diw ak diw. ceer mi ngay lim. dafa dugg ci arène bi am ay gàllankoor. waaw loolu moom la. taxaw na juróomi at ci làmb ji mënul daan ma. te ceer ceer mbapat amul nu mu daan da dala dala daan daan aller nga ñëw mu daan la retour. waaw loolu moom dëgg la. tournoi fu mu dem fu mu samp day daan ñëpp. bu dee saaku ceeb lañ lañ teg fii la koy teg yóbbu. bu dee leneen ak leneen day daan moromam yëpp jël yóbbu. Mhm. yaa ngi may dégg mais kooku ba mu duggee ci arène bi dafa am ay gàllankoor am ay jafe-jafe. taxaw na cinq ans ci arène bi mënul daan ba dafa mu dafa obligé bàyyi bëre kon gàllankoor yooyu noonu day am des am na ñoo xam ne dana di dal mais yow man am na lu ma gars ne ma da nga xawoon am ay gàllankoor oh, ay gàllankoor kay mën nga ko expliquer mën naa ko expliquer mhm. ma ñëw après après fa laa jaar fa laa jaaree fa laa jaaree tëdd fa nga jaaree tëdd waaw mhm. après nag mu moo ko dinaa taxal ngeen ne ko du ma que danga nga feebaroon feebar bu métti. waaw xam nga affaire bi da nga ko nga doon ah. saret. saret nga doon liggéey. waaw bu doole mhm. moo mhm. mais yow tooy la woon wala wala leneen la woon wala. feebaru làmb la woon genre yooyu. tooy la woon mais mais man gaa yi d'après man li ñu expliqué. Hmm. nee nañ ma bi nga jógee ci tawat boobu noonu. maanaam kattan bi nga amoon. boobu ba léegi amaatoo ko.

retard bi ci bopam mo bari han non non non man mom man mom man mom li ci war ci côté médiatisation man dina ko def parce que dama ñakone numéro yaa may dégg dama ko wër fu ne mais kérok la jékki-jékki mom moma def ci li ma sama waa ni mu démé non mané ko wono yalla ma ñakone sa numéro yaa may dégg mais man xamna ni ndanan la té man duma sul ndanan bokku na ci li tax ma déplacer wu tay ñew seet si ko mais mais de toute évidence ce premier combat dans l'arène yaa ngi ko bëre Oustaz Amadou Bari te digganteeg Modou Lo Junior